mbokki safo Dakar Media TV gannaaw bu ma leen nuyoo damay dikk ak ci xibaar yi fi jot a ruusandi ci alxames bi dañu koy daal di dooree rek ak ki nga xamante ni mooy journaliste chroniqueuse boobu la nekk Walfadjri di Thioro Mandela moom moom la nag ginnaaw bi nga xamante ni daal dinañu koy tek loxo ci wàllum topp ka maanaam groupe boobu leen ñuy woowee topp ka Thioro Mandela mi ngi ñuy xamal ni dafa nekkoon en état de grossesse ba toll ci euh, sept mois waral nag bi ñu ko defee retour parquet moom Coro Mandela daal dinay def ab malaise bu méttee méttee méttee ba jamono ji ñuy wax ak yéen Coro euh, Mandela ma nga fële ci hôpital principal bu Ndakaaru dañuy daal di woy des ci li nga xamante ni mooy ba tey wàllu euh, topp kaa mu mel ni nag waa division spéciale de la sécurité ñoom ñoo ñëwee nag daal di nañuy soulager wayjur yu bëree bëree bëri waral nag ñu daal di teg loxo lu tolloog juróomi doomu aadama ci boobule euh, groupe. ku ci mel ni Thioro Mandela mi nga xam ne dinay fës loolu ci wàllum journalisme moom moom la nag ci la bokk. ñu ngi leen di toppee association de malfaiteurs collecte illicite diffusion de données à caractère personnel ak i tamit diffamation et extorsion de fonds via les réseaux d'informatique. jot ci ay xibaar ni ab avocat bu mag a mag a mag buy wuyoo ci ci turu Ciré Clédor Ly dafa daal di bokk ci yooyu les victimes maanaam dañoo xaawi suturam ba mu jotoon a porter plainte moom Ciré Clédor Ly nag administrateur bi ñuy woowee euh, kii di chaise anglaise moo ko daal di publier ab vidéo obscène boo xamante ne avocat la cour pénale boobule nag mu ngi ci groupe Nene Tuuti yooyu ba tax na nag bëri ci ay organe de presse jotoon ko partagé ba ci ku ci mel ni euh, tiktoker boobu di mel di wuyoo ci turu Adamo moomu lamit daal di koy mettre en ligne di ci def ay débat yu doy waar ba tax nag maître Clédor lii daal di defoon ab plainte jëmale ko euh, ci yooyu le euh, groupe ku ci mel ni nag Nene Tuuti ñoom ñooñu la nag ginnaaw bi ñu leen tegee loxo lii di mbirum Clédor Ciré Clédor Ly bi ci la daal di feeñaaleel ñu di dem euh, ci ki nga xamante ni mooy activiste bu mag boobu di wuyoo si turu Assane Diouf moom nag daal di nañu koy placé sous contrôle judiciaire ginnaaw bi mu amee juróom benn retour au parc Assane Diouf daal di nay jàkkaarloo ak. Euh, le juge d'instruction démb ji waral nag di koy placé sous contrôle euh, judiciaire par le doyen des juges Oumar Maham Diallo waaye du tere nag moom Assane Diouf war na di signé chaque àjjuma bu mujj ci weer bi Assane Diouf nag ñu ngi koy toppee ak manœuvre de nature compromettre la sécurité publique ak itamit occasion des troubles politiques graves ak offense au chef de l'État loolu la nag nekk li nga xamante ni moom la ñuy toppee activiste boobu di wuyoo ci turu Assane Diouf mbirum euh, Sidi Ahmed Mbaye daal dinañu koy daal dinay dugal nag moom moomu le nag lu tolloog euh, si ñaari million ci suñuy koppar démb ci àllarba ji Ah, loolu la nag li ko waral du leen lu dul bor bi dox ci digganteem ak ki nga xamante ni mooy Abdou Nguer xaritu ex boobu aji Sarr moom moom la nag daal nay jël ay engagement fële ca session de recherche bu Thiès daal di xam ne ni dina daal di joxe li nga xamante ni mooy des ci koppar boobu le maanaam juróom-ñetti yi nga xamante ni moo des ci fukki millions yi mu jëloon ah, ci Abdou Nguer nag moom moomu dina ko daal di rembourser bu ñu korité ah, ba pare fàttali tamit kii di Sidi Ahmed Mbaye jotoon nañu ko teg loxo ca Ndakaaru daal di koy placé en garde à vue ca session de recherche bu Thiès di ko toppee nag escroquerie waaye tamit yàggu fa yàqu fa benn yoon nag nag ndax nag li ko waradu leen lu dul ba mu xëyee la ñu daal di jot ab ndigal du procureur de la République tamit kii di Seydi Ahmed Mbaye daal di woon na avoué ci kanamu enquêteurs yi ne moo encaissé li nga xamante ne mooy fukki millions yu Abdou Nguer ngir daal di koy doon jaay dafa diggoon ki nga xamante ne mooy Abdou Nguer ab video vidéo obscène bu Ousmane Sonko ngir tuumal ko waaye tamit mi nga xam ne ne yooyu la vidéo da ko daal di ñàkk waral nag di millions yi nga xamante ne jotoon na ko encaissé fayu ko woon loolu de nag la ko kii di Abdou Nguer toppee. waaye Sidi Ahmed bay daal dinay remboursé ñaari millions ci suñuy koppar mu dese ko juróom-ñetti millions muy xam ne ni nag juróom-ñetti millions yooyu le nag dina ko daal di remboursé ginnaaw bu ñu korité ba noppi mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey jii ci seen xibaaru alxames ci di leen jox dig dajee ëllëg ak yeneen xibaar jërë ngeen jëf